jërëngeen jëf yeen mbokk internet yi ñuy sétane fii ci Sénégal ak euh, fépp ci aduna bi à travers Dakaractu am mbégte bu baaxa baax ñëwaat ak yeen ci seen numéro bu bes bu redevabilité bi nga xam ne ñaaree dañ ci dalal député yi nga xam ne ñoo nekk ci assemblée nationale. te ji nii nag ñu am mbégte bu baaxa baax di dalalaat beneen député di wuyoo si turu Yoro Sow honorable député ñu ngi am mbégte bu baaxa baax di la dalal ci émission redevabilité. jërëjëf Badara ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm fii ci assemblée nationale. Mhm. di leen sargal bu baax euh, di wax rek ni ñoo ngi nuyu sénégalais yëpp. Mhm. ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak ñu nekk ci jaspora bi. Mhm. di ñaan yàlla rek lépp li ñuy waxtaanee ci émission bi mu doon njëriñu askan wi. di rafet lu baax aussi euh, émission bi format bi ngeen ko tëralee. absolument euh, ñepp ñuy suivre seen médium bi. tout à fait alors euh, ci fàttali également yow maire nga ci département bu la rawatina commune bi nga xamné moy commune bu également le premier vice président bu commission euh, li nga développement durable ak li di transition écologique la ci e législature bi alors honorable député jamono y a ngi ci li nga xamné mom marathon budgétaire bi ci phase bu njëkk bi nga xamné mom lañuy la commission yi laata ngeen dem ci plénière yi est-ce que tey jii bu doon sa sago euh, bëgg nga sénégalais yi am gët ci li nga xamante ni moo di liggéey bi ngeen di def jamono ji ci assemblée nationale bu dee waaw lan moo tax. jërëjëf euh, lan moo tax parce que muy lu am solo. Mhm. assemblée nationale li ñu tuddee session ordinaire unique bu ubbee. Mhm. Euh, dañ koy ubbee par le vote du budget. vote budget bi nag dafa am ñaari phase. Mhm. li ñu tuddee les commissions techniques ak la plénière. Euh, li tax commission technique yi euh, am solo te ñu bëggoon askan wi xam ko parce que ni liggéey bi tëddee la tey ji bi ngeen di ñëwee fii da ngeen ñu fekk ñu nekk ci commission des finances euh, commission des finances boobu moom la ñuy saisir au fond ci budget ministère yi <laughs> euh, ci réforme lañ nekk nag bu njëkk en commission ñaari passage la woon ministre bu nekk ñaari passage la doon jaar de au niveau de la commission technique la mhm. commission technique est évacué wu ñu commission des finances ñom ñëpp ñu jaaraat mais euh, réforme règlement intérieur baisse bi dafa indi lu baisse ren mom la tambali ni nous mhm. directement en commission des finances mhm. commission des finances nak élargie à la commission technique mais c'est la commission des finances qui a am compétence voter budget ministère ba jall plénière. donc lool motax tax li ñuy def ni tay mu am solo. c'est bon à savoir li ñuy jox comme information parce que bu ñëk bo dañ doon wax da ngeen dem commission technique après dem commission finance la ta ngeen dem ci plénière yi. waye légui ñaar yépp presque da ngeen ko def muy ben waaw loolu nak xam nga li ci djublu rek. Euh, efficacité ak efficience. bu ñëk marathon bi comme niñ ko xamé def doon gudd. euh buñ da def commission technique tamit mën nañu programmer. ñaar wala ministères ministère mhm. sont nekk salle nouveau bâtiment ni nekk salle commission des finances par exemple ce que mhm. defee député bi du am possibilité teew fu nekk mhm. wala dañuy daw dugg fi inscrire daw bindu feulé pour wax légui nak lolu ñu dindi commission technique bobu te da doon yag tamit parce que le temps bi ngay def commission technique lolu ngay la commission des finances nous ne euh, pourquoi pas ñu def commission finance rek benn mhm. élargir ko à la commission technique par exemple tay buñ euh, ministère de l'éducation exemple moy mhm. mhm. euh, commission des finances fay yaatal liggéeyam ci commission bi nga xamné wàllu éducation. Mhm. yéen ñi nga xam ne yéen a jiite commission yi souvent euh, lan c'est le rôle bi nga xam ne ngeen jouer période bi nga xamante ni ci ci ci ngeen nekk. voilà le président de la commission moi moi, personne morale commission bi. moi mhm. moi coordonné. Mhm. Euh, session bu amee tamit. bu ministre bi ñëwee ak ay collaborateurs am toog. moom moom présider les séances moi, mooy ubbi moi, moi, distribuer parole bu parlez nag Moi, commission nous ñooy toog ci un lël xool nan la organiser travail un travail def suivi de évaluation euh, du gouvernement alors euh, volume de présence ou députés qui période bi nga est période de commission yi suñ koy évaluer comparer par rapport au volume de présence ou député qui ci plénière euh, ban la ñuy gën a gis ni député yi ci lañ ci lañ gën a fës parce que souvent aussi bu presse bi ñëwee euh, fekkee plénière yi dinañ gis ne député yi maanaam seen nombre day am solo. est-ce que c'est le cas jamono ji nga xam ne ngeen nekk. effectivement parce que boo ko seetloo sax dana dana jafee natt. parce que bu ci nekk da cee am particularité boo seetloo bu ñu bu ñu nekkee en commission euh, ca lay député bi di am possibilité dëgg-dëgg jël temps posé problème yu par rapport au ministre bi. foofu amul benn temps buñ ko impartir. amul euh, bu njëkk amul woon. Mhm. Euh, avant la réforme amul woon. Mhm. parce que en commission technique. wala en commission des finances député bi day jël temps interpeller ministre bi. Mhm. xaar ko mu répondre ko mu mën a deuxième tour de parole. absolument ba troisième tour de parole. ce qui fait que jot bi ngay am.

la commission des finances Nous avons nan la travail. organiser suñu travail. un trouver code de conduite. les deux présidents de groupe parlementaire. le président de commission nous avons dit que ne nombre d'inscrits, nous yi plafonner le temps de parole à cinq. bu gënee y bu gën a bëri. Euh, mën nañ ko sax à trois. Hum, donc on accord le donc on accord là. donc le président du groupe parlementaire nous avons ba d' accord. nous avons commencé, commencé ne véritablement affluence la am chaque jour. <laughs> commission parfois sax dañuy dañuy déborder. ñuy sét nak bu ëllëg si jamm plénière bu plénière dafa am succès rek. <laughs> parce que comme ni nga ko plénière c'est le moment des télévisions et des radios. transmettre absolument euh, d'où le sens de ma question. parce que mhm. souvent il y a euh, certains de ces députés yu euh, députés yu bari ngay gis ñuy def seen show ci plénière parce que dañuy xalaat né presse banque faak yoy non mais souvent sax ñom ñoy ñi nga sont inscrit aux abonnés absents qui li nga xamante ni commission est-ce que da avez ko yow. parce que ce mhm. euh, que liñ fi wax que ak daaw jéeg. Mhm. nit ñi euh, surtout suñu mbokk yu ci gi. Mhm. du du Nous du ñëw. <laughs> Uh-huh. oui euh, biñ ci absolument Nous avons commencé pour éviter. Euh, askan wi xamné véritablement li seen liguey defuñ ko parce que nak mbir ma ci commission ya la mhm. ci commission ya véritablement le liguey bi c'est vrai que plénière bi mhm. amna solo trop mais boko setlo euh, comparer une plénière <laughs> avec une commission technique <laughs> euh, euh, ci huis clos dafa mel ni technique. tout à fait que bële c'est plutôt politique. C'est <laughs> euh, nañ ko nous tout à fait tout à fait alors li ngay wax ni yëpp day ñëw suite ak réforme bi nga am alors bi session bu Besbi. bi. bu hmm. tombeek li nga réforme bi nga amal nationale. Hmm. nan nga ko avons par rapport à ce que ne souple. bëriwul wala am na yenn barrières yoo xamante ni daf leen imposé wu ci li ngeen amoon bu njëkk ba amatoo leen ko. waaw effectivement xam nga foo gisee réforme fu nekk. Mhm. nit ñi dañoo taxaw seetluwaat. parce que amoon na lu sooxee peut-être ci règlement intérieur bu njëkk bi euh, baaxoon na trop nañ ko doon dérouler. Mhm. mais dañu dem ba yàgg ñu jànkonteeg ay problème mu temps mooy efficience bi ma la doon wax rek efficacité bi. Mhm. Euh, tey ji réforme bi lu mu indi mooy tey on va gagner beaucoup plus de temps mhm. euh, parce que si on supprime supprimer rubrique ce n'était euh, c'était pas obligatoire parce qu'au fond c'est la commission des finances qui décide mhm. pourquoi pas donc s'ouvrir directement à cette commission des finances nous mhm. nous supprimer étape technique bi surtout que rendi 2020 nous un cadre harmonisé euh, finance publiques bu nek ci UEMOA moy les budgets programme uh-huh. budget programme commission technique yi fan lañ leen gouvernement bi exécuter ay programme uh-huh. commission yi di waat ministre di leen auditionner di xol la euh, réforme bi am sens uh-huh. c'est à la veille euh, de l'application des budgets programme bu ko commission technique bi fofu lañ ko gëna xaar suñu voté suñu budget ba paré ba gouvernement bi di exécuter commission bi foofu la liggéeyam euh, benen mbir mi ci aju man mi di wax ak yow tay par exemple daw ak daw ji première année ak deuxième année législature dama nekkoon dans la commission développement de manière générale développement ak aménagement du territoire mu nekkoon benn commission bu yaatu lamb lu bëree bëri commission boobu tey ji dañ ko éclaté ñett pour te dire donc commission bi mu des fa de ñu commissions commission développement rural mhm. agriculture pêche et élevage des fa ñu créé commission bi ma actuellement premier vice président muy commission développement durable et transition écologique mhm. mu am une commission bu ñu déjee euh, le pétrole et le gaz mhm. gis nga ci la donc c'était une commission assez lourde Euh, jii nii féexal nañ ko gannaaw buñ ko éclaté def commission <laughs> mais aussi euh, de manière générale commission yep dañ ko tëggaat pour que mu gën conforme mhm. avec l'action gouvernementale li ñu ah, bëgg absolument bu bu ci commission bi nga xam mom nga nekk moy développement durable ak transition écologique euh, moy té li nga xam dafa interpeller ñëpp ci ci aduna bi par rapport ak changement climatique ak yoy non est-ce que yeen seen si jox Diego ak Sénégal est-ce que tay jii ni askan wi ñi nga xamné ñom ñofi ñoo nekk ñu comporté wu ay bon élève lañ par rapport ak li nga xamante ni moom ngeen jël def ko seen sas ngir changer li nga xamante ni moo di comportement yi ngir atteindre objectif yi. Euh, mooy suñu objectif boo gisee ñu comme créer commission bi. Mhm. loolu dafa nekk mbir mu am solo buy interpeller ñëpp. Mhm. tey ji les changements climatiques mën naa sax le réchauffement climatique. Mhm. ak conséquences am yu mu am ci adduna bi surtout ñun ñoo xam ne ay pays sous-développés lañ. on est très vulnérable motax ñu créer commission bobu pour spécialiser ci wàllu googu mais hmm. assemblée nationale yamut fofu rek euh, déjà dañ ñun dañ ci mësa a liggéey bañ nañ ko ñun dañoo am un réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal muy hmm. REPES <laughs> hmm. mën naa wax ne daanaka tey mooy le premier réseau ci assemblée nationale en tout cas ci walu doxalin ak ci walu euh, liggéey bu am solo bu muy def ci walu sensibilisation sur la préservation de l'environnement chaque année dañuy organiser une nuit de l'environnement mhm. pour primer les sénégalais yu nekk ci ay collectivités territoriales wala yu nekk ci sur la préservation de l'environnement mhm. pour encourager leen pour ñu liggéey ci liggéey la préservation de l'environnement C'est baa <laughs> la commission développement durable judd na ak le président Pape Sagna Mbaye ñu am volonté pour liggéey ci yàlla def aussi Nous ñu bokk ci parlement international ba nga l'union interparlementaire une am une commission une commission pour la paix et la sécurité internationale Nous liggéey ci une résolution résolution nous lan lay sur euh, les conséquences des changements climatiques oh, oh. sur la paix de manière générale La la hum, commission a rapporteur. Je dafa bëggoon ay rapporteur de da koy Afrique oh, Sénégal Nous ma en tant que co-rapporteur man ak collègue allemand avec sama benen collègue euh, sri lankais nous ñoo war a liggéey ci résolution sur mhm. les conséquences des changements climatiques mhm. moo tax bokk ci suma euh, commission développement durable muy aussi lu sens parce que mën na jox un peu de matière député nga ci 13e législature bi yaa ngi euh, bokk ci département bu a yaay maire bu commune bu Warxoox alors en tant que député war nga redevable ak sa sa sa population par rapport ak li nga xam ne moom mooy urgence de l'heure yi nga xam ne ñoo fa ne demande pressante bi tey jii euh, diggante war xoox li ngeen yan jafe-jafe souvent la askan bi di wax loo xamante ni dañ leen koy wax yéen ñi nga xam ne yéen ay parlementaires yi ngeen war ko porter au niveau de l'Assemblée nationale. jërëjëf muy muy laajte bu am solo maa ngi lay si sant bu baax parce que <laughs> député boo fi gis. même bu dee député wu Sénégal yëpp la. Mhm. am na gox bu mu jógee. surtout ñun ñi nga xam ne dañoo investir woon sax ci liste départementale ñu porté ko. Mhm. donc képp député bu redevable ñun man jàpp naa ne ñun ñoo gën a redevable parce que nous sommes issus euh, de la liste départementale. Mhm. Euh, ci loolu heureusement heureuse coïncidence tey jii. Euh, ci suba. Mhm. le ministre des infrastructures et des transports terrestres moom moo à l'Assemblée nationale. Omar Youm Omar mhm. euh, le ministre Omar Youm. Euh, tey muy muy jàmbat bu mag ci jorof yépp mhm. ñëpp diñu fa xaar. moy la route vétuste Louga d'ara. xam nga département Linguère dafa bok ci région administrative bu Louga. yoon amatu fa la distance bi 87 kilomètres. Hmm. yoon amu fa. a hmm. jii organiser des activités lu melna ay CRD. Hmm. Euh, maire déplacé gouverneur du dem Linguère compliqué. donc Linguère est coupé. Euh, de la région té loolu économiquement ay amna ay jafe muy posé tay bu à l'Assemblée nationale en commission en tir groupé tous les députés du département de Linger et de Louga euh, insister depuis 2017 nous avons, def. Mhm. ba le ministre rassuré ñu inscrire dans le budget de 2020 pour un montant de 30 milliards sur 87 euh, km danañ ko réaliser. Mhm. les passations de marché sont en cours. Mhm. donc c'est une bonne information qu'on apporte aux populations du Djolof le reste nous dañoo bokk ci zone. agro Le faire, le département de Linguère. suñu taxawaay moy nan lañuy ñuy cham càmm gi mhm. nan lañuy ñuy mbey mi donc ñoo ngi taxaw assemblée nationale di sensibiliser di alerter mhm. toujours sur la vulnérabilité du département mais surtout sur la gestion des ressources pastorales et ressources foncières donc nous ñu ngi koy indi à chaque fois wuñ nak nga xamante li jëm ci santé des populations de l'éducation parce que am toujours dañ koy à l'Assemblée nationale c'est le département de Linguère ci vois l'éducation uh-huh. euh, maintenant que ko zone de départ la uh-huh. affecte affecté enseignants les écoles, tëjee dans le cadre du mouvement national nous dem des déficits d'enseignants loolu porte nañ ko depuis daaw mi ngi amélioration même si nous trou des fattul uh-huh. euh, mi avons des amélioration sensible loolu moy suñu taxaway tayji dans le département de Linguère au niveau national. alors may fatil né internet yu ñuy seetaan ñu ngi dalal tay seen numéro bu yees bu redevabilité bi honorable député Yoro Sow également yo yaay maire bu commune bu Warxoox ñu ngi doon waxtaan léegi alors da ngay doon maire ci jamono ji nga xamné ñu ngi ci euh, ère acte 3 de la décentralisation ak phase 2 bi di li nga xamante ni mise en œuvre li nga xamné mom modi acte boobu alors concrètement en tant que élu euh, nan nga gisee acte bi ak mise en œuvre bi niñ koy doxalee est-ce que euh, tour bi lu lu baax la woon ñu bëri ñu koy wax mais niñ koy doxalee est-ce que gaañu leen au lieu que mu leen indil li nga xam ne moom moo di noflaay ci seen gestion yéen maire yi. bon déjà ñun ñun moom dañ ci dañ ciy sant yàlla d'abord. Mhm. réforme nag euh, souvent dama koy wax Sénégal les Sénégalais sont réfractaires à la réforme dañu xaw a ragal réforme. Mhm. mais réforme bi lépp lu baax la. Bon, déjà, nous, nous, sommes issus de communautés rurales. Mhm. Le fait que nous changeons de statut, que nous commune, amna lu mu parce que mon mënu commune nous mairie Nous xam nañ ni sommes ak communauté rurale mhm. budget mhm. euh, par rapport à li par 5 ou plus donc c'est c'est un c'est un avantage réel te gis-gis bi yaakaar président Macky Sall gis-gis bu bu sori la ci am <laughs> euh ay phase la nak réforme bu melni ak trois de la décentralisation mënul xey rek lepp yam <laughs> dafa am lu ñuy euh exécuter nañ un mandat de 5 ans Euh, le ministre Oumar Gay gis ngeen ko ci ay CRD wër na def ay évaluation <laughs> euh, les exécutifs locaux jox nañ ko lepp luy jafé jafé tay mooy tey peut-être ci wàllu mobilisation des ressources comme <laughs> ay collectivités yu bees la tamit am nañ fa ay jafe-jafe te ku wax collectivité locale wax ressource <laughs> mooy impôt ak taxi au niveau local pour nga mobiliser ko mën a tabax dara loolu am na ay sooxe ci wàllu territoire Euh, fan la dëkk yi commune bi fan la commencé ak fan la mhm. ay la ci gestion. des délimitation bi. Mhm. Hmm, agence nationale de l'aménagement du territoire ANAT. Mhm. mi ngi bu baax waye war na def ay euh, ci transfert de. compétences peut-être am na transfert de problème aussi. Hein, <laughs> parce que dafa bon mën nañ ko wax transfert de compétences mais ça reste encore des des transferts ou euh, des compétences partagées. beaucoup plus conséquent ça, ah, yo, xam ne war na leen mën a bu Voilà, voilà mmh. te ñu ngi te ngi laaj mmh. compétences yo, xam ne tey euh, par exemple ay wàllu hydraulique. Mmh. ak ay élevage agriculture. de plus en plus ñu ngi koy laaj mais comme nous ma ko Mm, une réforme c'est un début nous sommes en phase d'évaluation évaluation avons nous avons intégré les collectivités, les maires, nous collectivité exécuté un mandat nous avons ci expérience wax nañ ko tenir compte nous consulter consulté les experts mhm. Nous avons vers une réforme majeure mhm. réforme bu am solo déjà lépp c'est positif nous avons nous le président pour les pôles territoires mhm. avons naa Euh, njeexital mais mais pôle yooyu dafa yéex. <laughs> bañ ko waxee ba léegi bu Kaolack bi leen fi gis pôle Sine Saloum bi ak bu Casamance mu xaw a jóg mais boobu ba ah. léegi après déggatuñ ci leen yeneen pôle yi anañu c'est vrai nag parce que Badara affaire bi yombul <laughs> bon déjà mais acte bi mu ngi bëgg a yàgg aussi ah waaw mais acte bi cinq rek la la defagum ah, ah. crois que dina dina ñëw hmm. boo xoolee pôle déjà maa ngi la koy wax léegi ci collectivité rek ay ay mairie wala ay département ñu am ay jafé jafé mhm. sakantuma pour nga xamné da fay dajalé ay communes yu bari ay département ay région sax mhm. euh, foofu dafa am ay critères homogénéité bi euh, mhm. géographiquement bi ak euh, activité économique yi est-ce que am ay complémentarité boo ko seetloo tey da nga am ay pôle yo xamné naturellement da fay génn mooy pôle Casamance euh, pôle Sine mais tayji bo boo par exemple l'ancienne région de Djourbel, nga xamné mom mo moo région de Louga. Mhm. tayji fofu bo boo fa bëggoon a créer pôle. il y aura problème. peut-être un mhm. problème parce mhm. que c'est le bassin arachidier. feulé c'est la zone pastorale. nan lañ koy défé Fouta bi ma nga feulé Dakar point d'interrogation voilà donc euh, genre affaire yu mel nonu fokk ñu saytu ko. ba xam am lu jàppandi as tuut mën koo teg nag commencé. di jubbanti nag. Mhm. yaakaar naa daal loolu mooy solution bi. donc mhm. jarul yàkkamti euh, ñu ngi ci liggéey te bu soobee yàlla bu sottee dana am njëriñ loolu. c'est c'est vrai euh, souvent day ñëw c'est c'est mooy véritable problème pour développer nos nos nos nos nos mhm. mais est-ce que euh, gisoon ne au-delà de ces moyens classiques yi nga xam ne ci ngeen di amee ressources comme mooy patente yeeg yooyu ak li leen état bi di jox. Euh, jotul tey ngeen ut yeneen mooy innovant yoo xamante ni yow mair bi yaay toog ak sa staff ngeen xalaat ne lii buñ ko tegee comme projet wala léegi lii buñ ci duggee war nañoo yokkal beneen ressource de financement boo xam ne mooy suqali suñu gees gox tolluñ jamono joojoo xam ne yéen ci ngeen war a mën a xalaat tey. mais dama d'accord ak yow c'est le défi loolu tey mooy défi bépp maire. Mm-hmm. nan la ñuy mm, suñu. espace communal. Mhm. ba mën fa wut ay ressources. des ressources conséquentes mhm. pour participer au développement de la commune c'est vrai que actuellement on est fragile maire ne yàcc ni yasa di xaar gouvernement. di xaar euh, ba man coopération décentralisée. parce que man gëmuma ne moom développer commune. Les développer commune peut-être c'est le bokk commune euh, euh, kii li nga xam ne coopération décentralisée. mais mhm. intercommunalité bi tey jii mu ngi fii. diggante gox yi ak ci biir Sénégal mais gëm naa aussi xalaat bi ci des moyens de tamit lu il faut jouer sur plusieurs tableau

ko séddale de par la péréquation. ñëpp communes yëpp jot si. ba ay communes yoo xam ne amoon nañ tey ay jafe face fay seen personnel bi ñu recruter. loolu que ko ñëw régler ko carrément. donc transfert de l'État yi moom dañ koy soxla pour mu gunge mais nak euh, les collectivités nit ñi commencé nañ. tey jii commune boo fa dem lu mu tuuti tuuti euh, am ay fonds propres am yoo xam da koy liggéey ci biir commune pour mën a jël en charge un problème de fonctionnement yi. Mhm. Euh, xalaat la nag tey technique dañu war a teg li parce que ñaari commune mën nañoo dende. Mhm. Euh, fekk bokkuñ ay ressources. Mhm. waaye dana mën am complémentarité bo xamante bi suñ ko boolee liggéey ko en synergie. dana mën a am le collectivité bi. te ci dynamique boobu lañ nek dans le cadre de l'AMS. tout à fait moo AMS. association des maires du Sénégal association des au niveau des départements que nous créé ay structures départementales nous avons des dinañ wut partenaires am na fi nak uh-huh. fi ci biir Sénégal ay structure yo xam dañuy gunge les collectivités dans la gestion des ressources par exemple tey jii ñun ci biir département Linguère def nañ fan yele ndaje bu am solo euh, sur la gestion des ressources naturelles. Uh-huh. ci gunge CERFLA CERFLA mo moy ben centre d'études euh, sur les sur les langues. Uh-huh. muy yëngu ci walu euh, élevage ci le pastoralisme mais aussi ci l'alphabétisation et la capacitation des femmes mm, nga indi nak euh, walu genre bi nan lañu ñuy jigen jigéen ñi xale yi ndaw ñi euh, même les personnes vivant avec un handicap tout à fait pour mu am équité et inclusion absolument alors émission bi jeex dernière question nga répondre si rapidement tay jii Yoro Sow en tant que député en tant que maire également ce défi bu atteindre objectif ci li nga statut élu voilà en tout cas en tant qu'élu nous ñun buñ sacerdoce. <laughs> on a vu euh, nos populations am ay euh, lan ñuy neex que ñu am un accès satisfaisant. <laughs> lan la accès satisfaisant. ci population bu ñu jógee dugg ci ay structure de santé yu uh-huh. mucc si ayib ñu am traitement bu ko war uh-huh. jaar ci mutuelle yi ak couverture maladie universelle bi ak ay poste de santé yi nga xam ne lépp lu nga xam ne nit war na ko fajoo fekk ko fa ci wàllu éducation njàng mu mucc si ayib uh-huh. ñu dindi lépp loo xamante ni jëm na tey li ñu tuddee ay abri provisoire ak yooyu xale yi jàng ci condition yu mucc si ayib enclenché nag un développement économique mi xam ne fii dafay jaar dans un environnement sain hein, faire euh, hygiène bi faire assainissement pour que la population soit dans un bon cadre De loolu rejoindre politique bi le président Macky Sall son excellence d'accord, Tegren, tout les cinq initiatives accès nous ñun euh, collectivité locale collectivité territoriale répondant à état

da nga war a rendre compte bu dee am nga bilan loolu la ñu gëm. <laughs> bu dee am nga bilan. même bu amul bilan it rendre compte. <laughs> moom. mais Sénégal la ñu <laughs> souvent bilan rek ñooy sañ a rendre compte de. y' a des comptes à rendre. tout à fait tout à fait mënul ñàkk. Mm. donc euh, ñu ngi la ci gërëm bu baax di la ci sant bu baax. ci occasion bi ñu may. absolument merci bien mu doon euh, honorable député Yoro Sow di euh, maire également bu commune bu War Xoox nekk ci département bu Linguère moom mooy également premier vice président bu commission développement durable ak transition écologique. mom lañ doon dalal ci numéro bu yes bu redevabilité gërëm ko sant ko gërëm également ñi doon sétane ak ñi ma jàppale woon ci réalisation wu numéro émission bi redevabilité di leen jox rendez-vous benen yoon ak benen honorable député comme ni ma koy waxé rek d'ici là l'information continue sur la référence Dakaractu merci bien